CCT ak CSE comme ni nga ko waxee su ma déggee bu baax mën na nekk prétexte pour le président mu dissoudre l'Assemblée nationale. non non mais xam nga même dissolution boobu ñuy wax ne ça peut être un prétexte ça peut ne pas un prétexte xam nga lu tax. parce que déjà nous sommes presque au mois de au mois de décembre euh, au mois au mois de septembre. te le 12 septembre légitimement légalement on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mm-hmm. cest diggante bi président bi moom yàkkamtiwu fi. Mm-hmm. su fekkante ne tey ils ont rejeté la loi. Mm-hmm. pour réviser la constitution. Mm-hmm. jàppal ne bu ñu demee bu xasee ba date fatidique bi ñu romb ko. Mhm. président bi il tout toute la légalité et toute la légitimité pour dissoudre assemblée nationale bi. donc xam naan bon ci war a ba jël prétexte yooyu non du question jël prétexte parce que loolu moom ñu bëgg ko ñu bañ ko ñu nekk ay bu xaaba ba ñu nekk ay bu xaaba ba tôt ou tard le président va dissoudre l' assemblée nationale. parce que il n' est pas question quand même de gouverner avec une majorité boo xamante ni ne pousse pas ta politique li mu a indi mooy. xam nga ñoom dañu doon wax naan la déclaration de politique générale si jamais aujourd'hui il rejette la loi mmh. cela veut dire que donc tey premier ministre bi su doon def DPGM ñoom aussi il n'hésiterait pas à faire une motion de censure pour daaneel pour daaneel gouvernement bi hmm. te dafay confirmer li nga xamante ne moom la Sénégal yi doon wax en disant que si Ousmane Sonko se présente à l'Assemblée nationale quelle que soit la pertinence de sa déclaration de politique générale. Mm-hmm. à la ñoom xam lu ñuy gis. mooy daaneel gouvernement bi c'est-à-dire que def motion de censure parce que ki ñuy viser c'est pas le contenu de la DPG mais li ñuy viser mooy l'homme en tant que tel intitut personnel c'est-à-dire Ousmane Sonko ci bopp moom la ñuy viser. moom la ñuy viser moom la ñuy viser pour neewal pour neewal ko doole. donc li nga xamante ne moo nar a xew tey assemblée nationale en tout cas couteau à double tranchant la les deux choses l'une ou soit ñoom ñu bàyyi loi bi mu jàll. c'est-à-dire ñu ñu supprimer ko et en ce moment là man jàpp naa ne loolu sax mooy gën a feex ci ñoom parce que au moins sénégalais dinañ jàpp ne ñi am nañ benn rationalité politique au point de fair passer cette révision constitutionnelle mais si jamais ñoom ñu taxaw ne loi bi du jàll parce que aussi il faut que ñoom ñu motiver seen décision mm-hmm. soit ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Benno ñoom mën nañu wax ne ñoom ce sont leurs institutions donc am nañ droit ñu protéger ko c'est vrai mais du gis-gisu peuple bi aussi parce que ñëpp xam nañ ne institution yi jibi Mm-hmm. bañ fi nekkee ba léegi ban plus-value la ñu indi sur la démocratie sénégalaise amul HCCT mënoo wax ne lii la indi mënoo wax ne CSE c'est-à-dire tey nit mënul ne CSE décision fi d'ailleurs rapport bu fa mos a jógee ñu dem ci président ce rapport là n'a jamais été exploité heure bu ñëwee ñu jël ko dugal ci tiroir te ñoom seen biir sax du côté de la euh, ñi ñu jàpp ne ñooy majorité assemblée nationale dafa mel ni sax réeroo dafa am seen diggante. Euh, parce que ñii ñu ngi naan bi ñii ne non ci par rapport ak li ñu war a li ñu war a voté donc ndax dafa mën a affecté ñoom seen cohésion ah mais cela va sans diir parce que su fekkente ne décision boobu dañ ko war a jël certainement am na ñoo xam ne ils vont dire ils vont se dire que ah la volonté du président de la République parce que foofu noonu euh, dañoo risquer perdre soit leur influence wala leur mandat moom laa la xam nga li ci gën a grave mooy nañ xalaat ne législative yaa ngi ñëw. waaw c'est pour bientôt. te li ñuy décision bi ñu jël tey mën na am une répercussion ci élection législative yi di ñëw. Mhm. positive ou négative. mais man day ce que je leur conseille mooy nañ voter cette révision. constitutionnelle mun na ay répercussions. ah oui xam nga conséquences non xam nga parce que ji bi. bi jëpp dinañ leen jëppi jëpp boo xamante ne nii je vous assure que boo deful ndànk. boo defoon ndànk parti yi fi gën a représentatif fii tey mhm. ils n'auront pas un groupe parlementaire ah ça non ça je te le dis et puis nañ ci dem su fekkente ne si jamais ñoom bu ñu ko bëggee rek nañ ko def cest à suñ ko defee rek lu wóor te wóor ne mooy élection législative yi su ñëwee ils vont mettre encore le PASTEF dans une posture confortable pour remporter largement encore ces élections la moo tax ma ne ñi nga xamante ne ñoom tey ñoo nekk dans l'opposition que ça soit waa Benno Bokk Yaakaar surtout les gens de de de comment dirais-je de euh, Taxawu Sénégal ñoom parce que am na ñoo xam ne dëgg naa leen ci ñu am luñ ciy wax le problème de fond mooy c'est que Diomaye aujourd'hui c'est lui le président de la République ouais. il veut asseoir sa politique et dans sa politique il faut forcément supprimer les institutions budgétivores donc jàpp na ne moom c' est une question d' opportunité aujourd'hui que tey la ko sentir ne ci nañ convoqué assemblée nationale bi pour loolu dégg naa sax ñeneen ñi taxaw ne way le président n'avait pas le droit de convoquer l'assemblée nationale parce que les règlements intérieurs mais règlement intérieur assemblée mais constitution moo ko doole le président dans l'article 63 alinéa je crois 4 5 moom am na droit convoquer tout simplement l'assemblée nationale en session extraordinaire il y a pas def na ko fii bi ñuy réviser le euh, une partie du code électoral ak le code de procédure pénale Macky Sall l'avait fait et pourtant à l'époque ceux qui crient aujourd'hui haro sur ça à l'époque ils n'ont pas dit moo tax xam nga nit ñi nañu bàyyi toujours ils sont rattrapés par leur passé parce que loo fi wax tey bu ñu la ko vaaree démb ñu ne la démb li amoon na fi et pourtant les tu n'avais pas réagi nañ bay foofu di souligner ay impact xam nga ngi wax ci impact yi mhm. conséquence ñoom dem nañ bay souligner impact ci wàllu institution yi sénégalaise yi mooy lan puisque dañuy wax HCCT euh, collectivité territoriale yi mhm. euh, conseil économique social et environnemental dem nañu bay wax naan euh, ci représentation ci wàllu collectivité territoriale yi ak corps intermédiaires yi au Sénégal mën na am ay impact oh wala yooyu yooyu du lu tegu non non ça impacté en quoi xam man man affaiblir leen lu jëm ci seen démocratie participative ci réew mi non démocratie participative ah, très bien mais léegi man comment sort un seul document boo xam ñoom produir nañ ko mu am impact positif sur la démocratie sénégalaise xam nga tey su fekkoon ne ñoom dañu produiroon ay documents yoo xamante ne nii wóor na ne am na une incidence positive sur la marche démocratique de ce pays su boobaa ñun ñu nga xam ñooy peuple bi nu serions les premiers à dire que institutions yi kenn du ko supprimer mhm. mais ñoom li ñuy wax ça c'est clair non seulement on va supprimer ces institutions là mais on va renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale moi que le siège même de la démocratie sénégalaise c'est l'Assemblée nationale c'est là où il faut renforcer les de l'Assemblée nationale surtout opposition bi nga xam ne ñoo nekk foofu il faut que ñu sentir ne il y a une opposition et que la majorité n'écrase pas la minorité au sein de l'Assemblée nationale mmh. je crois que aujourd'hui li ñu gën soxla mooy une Assemblée nationale forte loolu suñ ko amee toutes ces institutions superfétatoires que sont les le CSE le HCCT yooyu yëpp je crois que le Sénégal peut bel et bien s'en passer même soo xoolee France bi nga xam ne ñun fa la ñu tibbee euh, comment dirais-je le CSE conseil économique social et environnemental mais de plus en plus il est question même de supprimer cette institution en France là parce que ñoom gis nañ ne aussi amoo fa benn njëriñ mm-hmm. parce que ñun institutions yooyu ce sont des institutions cosmétiques recopier ci français yi sans pour autant même ma mën a am une adaptation ñun dans notre démocratie c'est-à-dire ma am benn taxawaay ci ndëgër laaj sunu suñu démocratie mhm. loo xam nag ñun dañ ko jëloon importé ko mais wax dëgg yàlla même Abdoulaye bi mu ñëwee il a tenté de supprimer le CSE remplacer ko par beneen le CRAES mhm. mais gis nga aussi le CRAES est mort de sa belle mort <laughs> gis nga ñu wax encore le CSE ce qui veut dire tout simplement que des institutions yoo xam ne parce que sànq bi nga waxee ci ñu ku mel ni Bougane Gueye Zahra Iyane Thiam dégg nañ ko Moustapha Diakhaté également euh, ñoom ci bëri sax dem nañu bay yëkkati ay critiques ah ci ci wàllu ci wàllu reforme bi ñu ne le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye defut lu dul jël réforme bi ngir lan consolider ah pouvoir bi mu am au détriment des des des équilibres démocratiques ñu dem sax pire ba day wax ne fi mu toll nii ah dafa jël priorité bi jox ko politique bi au détriment des urgences euh, socio-économiques. waaw mais loolu urgence la xam nga supprimer ko urgence la xam nga tax supprimer ko urgence la dans la mesure où ça permet au Sénégal euh, au Sénégal tout simplement de faire de un, gain quasiment de quinze milliards par par an loolu urgence la. xam nga ñi nga xam ne chaque jour ñoo wax ne lii on engloutit des milliards là-bas parce que ji bi nañu waxante dëgg. Hmm. ña fa nekk fee. cest à c'est une clientèle politique qu'on a tout simplement là-bas nañu waxante dëgg moo fi nekk. Hmm. man gis naa ko ñoo xamante ne ni wóor na wóor yàlla ne. duñu mu xool institution yooyu tey boo leen laajoon bâtiment bi fu mu féete sax mën naa leen xamuñu ko te chaque fin du mois ils reçoivent de l'argent en plus nga jox leen oto jox leen en jox leen carburant hmm. <laughs> yóbbu ko ci biir Sénégal nga def ko ambulance ko jox ko dëkk yi nga xam ne ñoo ko soxla man je crois que ce serait beaucoup plus utile là soo jëloon tey 15 milliards annuels yooyu nga jël ko nga déployer ko dans des zones yi nga xam ne c'est des zones déshéritées vulnérables je crois que foofu la doon gën a mën a am njëriñ il faut savoir quand même et puis loolu j'ai dit dans la marche même du projet de PASTEF. Mm-hmm. boo xoolee le conseil des ministres mais on a parlé quand même de beaucoup de dépenses yoo xamante ni qu'il faudra rationaliser le premier ministre a fait une communication là-dessus mm-hmm. donc on va vers une certaine austérité et je crois que loolu il le faut nécessairement dans la mesure où on a vu que Sénégal xaalis bi ni muy génnee ak ni muy yàqu dafa bëri te amul mm-hmm. cest amul benn amul benn njariñ bien sûr pour le peuple sénégalais amal na njariñ ñi nga xamante ne moom xaalis bi ci seeni i poste la jëm donc aujourd'hui ñi nga xamante ni pour la suppression de ces li ñu waroon def kay mooy vraiment tàccu le président Bassirou Diomaye Faye même s'ils ne sont pas du même bord politique mais parce que tout simplement on partage pas la même formation politique que yow la nga waxoon démb ñu la koy réaliser tey mais tu trouves des subterfuges pour wax ne les priorités sont ailleurs ou bien ce n'est pas je ne sais pas ce n'est pas ñoom du urgence mais ki nga xamante ne moom la yàlla jox léegi réew mi moom jàpp na ne loolu urgence la te ñun ñi nga xam ne aussi xam nañ ne ñu institutions yi amul njëriñ pour ñun urgence la ñu teel ko supprimer la preuve bu yàggul rek laa gis waa LD Debout mhm. ñoom déjà ils avaient rappelé au président de la République que parmi les engagements il y a la suppression de ces institutions qu'il qu'il faut faire oui. donc pour man ça vient à son heure mhm. maintenant ceux qui disent que ne affaire bi ay coup politique la et cetera mais c'est de bonne guerre parce que aussi politique comme ni ma ko waxee léegi c'est pas un genre d'enfant mënoo faa dem di neexal say adversaire politique c'est-à-dire que lépp loo mën a def pour mën a neutraliser say adversaire politique da koy def léegi nag su fekkente ne aussi ñoom jàpp nañ suñ ko defee ils vont mettre en tout cas en mauvaise posture le Benno Bokk Yaakaar et une certaine frange aussi de l'opposition mais je pense que loolu c'est un coup politique quand même qu'il faut saluer parce que bu doon ñoom tey ñoo nekk encore la même bu ñu nekk l'essentiel c'est la ngay def bu mu nekk loo xam ne c'est illégal bu mu nekk loo xam ne c'est antidémocratique mm. alors que ñoom acte ñu posé amul lenn lu ci illégal amul lenn loo xam ne c'est antidémocratique mais mais